je pense lola nek sa di xalat propre entre may wi ma setan yi eh, eh, ma jëta gis ci mise en place yi et que au système bu fekke dañuy top hiérarchie ak bo xamé touti alu ci au système pour pour man classement bi mo gëna logique ci classement yi ma gis yépp donc man mom dama amone préférence juste en eh, attaque Nicolas Jackson maintenant nak Abib Diallo vu dernière performance vu l'absence de Boulaye qui wara tutelé en temps normal ci Abib Diallo mais à part ça euh liste de ce correct benen point d'interrogation bu ñu am rek moy euh axe bi kan mo wara jouer à côté de Kalidou Koulibaly je pense que ñaar poste la mooy ci kaw comme moo nekk attaquant Habib Diallo ou Nicolas si suuf entre comme euh, moo nekk à côté de Habib Diallo Abdoulaye Seck euh, Moussa Niakhaté wala keneen kii di euh, peut-être booy boobu sax xëy na day teel Abdoulaye Niakhaté Ndiaye moom day teel mais Abdou Diallo Abdoulaye Seck donc ak Moussa Niakhaté moom lañ jox attaquants yi donc on va dañuy joxaat numéro un bi Edouard Mendy joxaat ko confiance donte Maurizio a fait un bon match euh, c'est pas mal donte mën na de sax lu gën a extraordinaire loolu par rapport ak gis du côté de Clermont donc Seny Dieng bon voilà gis ngeen début saison bi du côté de championship Middlesbrough ñoo ngi xaar lu ëpp lu mu mën nii donc Edouard yoo xam ne mooy nekk ci camp yi y' a pas de débat au niveau de la défense Kalidou Koulibaly Abdou Diallo bon lii mooy défense bi nekkoon Coupe d'Afrique bi lii mooy défense bi ñu yóbbu Coupe du Monde si diggante bi nag li fi changé bëri na gis ngeen ne Abdou Diallo le live teew ko dellu na Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain aussi tamit bokk woon si seen i plan ñu jaay ko du côté de Qatar est. Pour le ak début saison on tey di boo doon comparer à côté de euh, gis ngeen ne ñaxate si blessure le on va voir dernier match du côté de Nottingham Forest jouer, mais il a fait un grand match contre Brésil à côté de Kalidou Koulibaly donc c'était intéressant ñu gisaat boobu le duo maintenant nous xam nañ Abdou Diallo en forme à côté de Kalidou Koulibaly maintenant Abdou Seck aussi n'a pas démérité du côté de Maccabi Haïfa championnat Israël il est très bon dernier match bi contre Mozambique benn match que ñu ko jot temps de jeu on a trouvé un bon Abdou Seck maintenant nag li ma jàpp ne Aliou ce sera Abdou Diallo Kalidou Koulibaly latéral latéral droit c'est c'est c'est Youssouf Sabaly xel dal na alhamdulilah incertain la jouer donc euh, alhamdulilah bu ñu gisee Youssouf Sabaly donc oh, di maanaam waxtaan ak dimbe algérien seen i seen i journaliste ma leen wax na ah Sabaly daal ñu ragal peut-être moy nekk suñu point faible bu fekkee joué wul quoi donc Sabaly day joué à côté latéral gauche kii di si mooy joué joueur Monaco on va voir lan lay joxe vu que début saison bi temps de jeu bi xamante ne sénégalais ñu ngi koy xaar ak Aliou Cissé ñu ko du côté de Monaco on on pensait que dina dem du côté de Union Berlin Bundesliga wala Fulham mais malheureusement mbokk sénégalais bi di Fodé Ballo-Touré moo ko dem donc on va voir ce match lan lay apporté, muy kii di Ismaël Jakobs au niveau de notre milieu terrain ce sera Idrissa Gana Gueye 6 Ciss ak kii di Pape Matar je pense que moo si gën logique quoi ci fi nekk euh, en terme de milieu terrain vu l'absence de Nampalys Mendy ak Pape Gueye donc euh, ñoom ñaar ñëpp dañoo tëtu leen contre Brésil euh, Pathé 6 motel, tëdd leen ñu nekkoon trois donc les deux joueurs newuñu ci liste bi donc kii di Gana je pense que début de saison bu correct la def Après, pare euh, des trois moo expérience équipe nationale sélection moo leen donc euh, mën na mën na mën accompagner bi jouer du côté de la République on pensait que day dem du côté de Olympique Lyonnais en France les mu du côté de l'Espagne. Moi aussi match bi mu def bi def contre Brésil bu fekkee andiwaat en termes d'intensité, en termes de de ballon récupéré agressivité bu bu bu bu ci la bataille du milieu ça peut être intéressant pour l'équipe nationale Sénégal keneen ki xamante mon pour mon moo war la ligne entre le milieu et l'attaque c'est pas Matar Sarr début saison bu correct la def euh, surtout que masse de référence à mu am nous sommes si Manchester United double premier biom si statam donc euh, masse de stop contre Burnley mu def Maddison mu jox ko passe donc il est en grande forme c'est parce que Belmadi wax na wax quand ko même en conférence de un, c'est un jeune bu qui a du talent donc au niveau de création andi ay occasion trouver Iliman Ndiaye trouver des Sadio Mane je compte sur qui di pas au niveau de l'attaque il y a pas de débat hein. Sadio Mané côté gauche côté droite en l'absence de Ismaël Sarr forfait de du côté de Marseille Iliman est moom joué au niveau de l'attaque comme ni mu ko le point d'interrogation c'était entre Abib Diallo ou Nicolas Jackson vu que Kidi di a fait forfait aussi donc Abib Diallo il a bi confiance vu prestation bi mu def contre aussi début de saison euh, Arabie Saoudite deuxième match troisième match le premier biome, on va voir donc euh, tak kata kale ani si defense kidi Nicolas Jackson en deuxième période meuna dugg pour man donc classement bi la la japp ne Alice eh, c'est mom lay tek yeen lo lañ ci xalat 4-3-3 est-ce que war nañu meuna door kidi Algérie avec ce 4-3-3 en termes de jeu ak l'appui du public espérons jël ndam li mbokk ni meuna ko video ci commentaire wax le mais sen xalat ak sen gis gis ma len di jay jëfël ne bu baax wax le mbé benen